tey dañu fi ñëwoon fii ci pouponnière euh, vivre ensemble bu Mbour euh, andi woon fii euh, sunu asaka yéene di ndimbal boo xamante ni directeur général bu ARTP di monsieur Abouli dafa ba ci ci ci ci wàllum mbas mi nga xamante ni moo dal sunu kaw ñu koy woowee Covid 19 yëg ni waa pouponnière de Mbour danoo soxla ndimbal. ndax amaana ndimbal bi egg seetul ñi daan ñëw daanaka mën a mën na am mënatuñoo ñëw ñu lance ñu def loolu ñuy wax cri de cœur maanaam bu ñu koy wax ci wolof dañ naan danoo yuuxu wallu woote wallu ba mu déggee loolu ah, ndegam moom mi ngi woon ci ay action yu ñu mel di dimbali ñu bëri ci dëkk bi si wàllum Covid bi di leen yóbbul ay vivres yu ñuy dundee ak yooyu mu xalaat ñëw fii si pouponnière andi fii Euh, lii nga xamante ni moom la fi andi tey muy ay saaku ceeb muy ay ay eau de javel saabu suukar ah, ak ay li ñuy woowee kiit maanaam day nekk benn ensemble carton boo xam ne lépp loo xam ne xale dina ko soxla rek mu ngi ci biir ay chocolat ngi ci ay bonbon ay meew ay couche def na si ba def si ay jouet kon nga xam ne kooku mi ngi xalaat xale yi bu baax xolam ak xelam ak xalaatam lépp a ngi fii ci pouponnière bi ndax dafa di euh, papa moom it waaw xam ni it xale yi fi nekk soxla nañu taxaw waaw mu daal di ne xaaral mu andi asakaam yéene fii ci pouponnière loolu moo ñu fi andi woon tey. waaw loolu di baax dina baax ñu préciser ko li tax euh, direction général teg ko sunu loxo ndax dafa bokk ci sunu yëngatu euh, wàllum social ndax fii daanaka daan nañ fi ñëw. xamna naa loolu na ci li tax mu tek ko suñu loxo tay ñu andi ko ma and ak sama natango yi yëpp ñi nga xamne mom ñom la bokkal bureau bi ñu ñew andi si ko fi waaw muy ben muy suñu mbekté ñu nit di suñu tawféex bu baax loolu mu ñu defal ñu sant ko ci bu baaxa baax. message bi mu yónnee rek moy message wax ni mu ngeek ñom waaw xalom ak xelama xalaatam nga fi te ndimbal bi nga xamantene ne soxla nañ ko waaw japp na ne limu fi andi. waaw asaka yéene bi mu fi andi dina ci mën dara waaw te di wax ni it moom mi ngeeg waa pouponnière bi faw waaw saa su ne jigéenam yi nga xamante ne dañuy yëngu ci social dinañu fi ñëw di fi andi saa su ne seen ndimbal. kontaan rek kontaan rek la ñuy yëngu ndax wax naan boo yuuxu ñu wallu si la loolu rek ngay yàkkamte léegi nag ki lay si mu ñëw aussi tamit ak li nga xamante ne soxla parce que kit yi mu indi ne c'est des kits alimentaires donc mu nekk li nga xamante ne xale dañ ko soxla indi javel pour set gi indi saabu pour set gi tamit suukar donc mu ngi def lu dul di leen ci gërëb di leen remercier nag ci geste bi ñu def kontaan nañ ci trop macha allah.